faral di joxe xalaatam ci wàllu politique léegi ko yaa ni mën a bëggoon a laaj mooy fi réew mi di taxawee nii bala ñu ñëw ci eh, tey eh, li nga xamante ni mooy yaanamaar da ko woote eh, ci yenn détenu yi nga xamante ñuy jàpp ay détenu politique la jaruma leen di xaw nañu bari trop mais concert casserole bi mbir mi noo ko gisee 31 décembre lu toll na 31 décembre ñu war a taxaw fëgg ay ay boole loolu noo ko gisee lu toll 31 décembre lu 31 décembre waaw mais d'habitude 31 décembre da ngay ànd soit yaa ak say doom wala yaa ak say famille wala sinon nga toog sax si télé bi déglu discours président. fanweer ak benn hmm. fanweer ak benn mooy 31 décembre. waaw mooy bis bu mujj ci at mi. waaw léegi nga ni conseil constitutionnel pour lan pour lan ko en man est-ce loolu est-ce que choisir beneen date dul ay 31 décembre quand ah waaw pourtant choisir choisir choisir choisir woon nañu yeneen i date. Mm-hmm. pourtant trente Kawsay euh, Casserole defe naa bii mooy troisième fois bi je pense. Mm-hmm. troisième saison bi. waaw ah, je pense que kon kay man jàpp naa ne amul benn bis. Mm-hmm. boo xamante ni wax nañ ko ci constitution réew mi. wala ñu wax ko ci sartu réew mi ne nit ki waru cee fësal naqaram. ci façon bu mu ko bu mu ko bëggee. comme nag yàlla dafa dogal Kawsay Casserole itam ma bëgg ñu bañ a def nuance. dafa am lu ko waral. li ko waral mooy dañoo mayatul. kenn ku nekk la la sart réew mi may mooy soo amee lu la naqari nga dem ci ni ko yoon waxee dem yëgal préfet mu encadré la nga wane sa amertume comme ni ko réewu démocratie yi doon defee comme ni ko aussi Sénégal daan doon defee avant Macky Sall parce que ku ne xam na ni nguuru Ablaye Wade nga xam ne ñun fekkee nañ ci tuuti ku manifester manifester la preuve Macky Sall ñuy tay di nit ñuy manifester ba option une ko sur le soit def soit une première étape nek plan A plan A mo déclarer euh, euh, euh, déclarer marche état encadré ñu dem def ko ci pacifiquement mm. mais dafa dem ba dañ ko mm. barki de 17 juin ñu ñetti doomu Sénégal ray leen ndax dañoo bañ ñu manifester te bi ñu leen ko mayee le 8 juin biñ ko defee le 8 juin dañ koo def place de la nation mu fees dell leader yëpp ñëw jeunesse bi yëpp ñëw ñëpp ñëw ñu def ko ci jàmm bañ na ko ba mu jeexee man maa ngi fi woon dañoo jël ay nit ñuy ñoom ñi doon manifester opposition bi ñoo for mbuus yi forme maanaam da ñëw waxoon naa toog vingt ci guddi boo ñu ne la fii amoon na manifestation doo ko gëm est ce que bu ñu leen di taxé dañuy taal réew wala ñu leen di taxé dañuy ra dañuy ko mayee ñu ko waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo leen bi bañal amul benn wax wala benn lu lu lu lu lu aju loolu mm-hmm. lu ñu mën a teg ci kaw table bi lu dul njiitu réew mi moom mooy dictateur mm-hmm. njiitu réew mi moom moo teg loxoom ci kaw justice bi moom moo teg loxoom ci kaw assemblée bi moom moo teg loxoom ca ci kaw bépp pouvoir bu fi nekk mm-hmm. ba tax na képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci yoon mënatoo àtte sa ay àqulaay taalaa mënatoo àtte li nga xamante ni mooy dëgg pour askan bi loolu rek moo indi tey ñuy seet beneen méthode te defoon lañ ko mu sax sàpp ñu tëggal ko ay bool ndax taal bu taw a tàkk nag Ousseyn mu ne lañ koy xam ne réew moo xam ne nee nañ président mais est-ce que ñu sóoraal peut-être malade yi ma daaneel euh, réew moo xam ne nee nañ président bi daa war di rey di tëj mm-hmm. ku fa dëkk war ngaa fëggi bool nag mm-hmm. Ousseyn nañ waxtaan mm-hmm. yaa ngi ci danger di autorité ci réew mi Khadim Samb moo taxaw ne président dafa war a rey di tëj man da man ku tëjul man tiit naa man ku tiitu. vi vidéo bu mujj. waaw gars yi may wax ak yow Ousseyn xaaral ma assurer lii. réew mi lay waxal. Ndiaga Sarr réew mi ñu toog. ñu ne président ba daa war a rey nit. nga ne fa sa xel bi dal. ñu dëkk kaso nga daan tax réew moom war na loo sara xolle. ñëpp war a jub. réew moo xam ne dañ ne fa dëkkee dañ leen da war a rey di tëj te du mujj fenn. réew moom war na faa tere ku dëkk kaso la. Ousseyn dañ waxtaan même ñu vidéo xam malade yi xanaa tey ngeen leen teg tey ngeen leen sóoraale hmm. barki démb réew mi <laughs> barki mi réew mi dañoo feebar <laughs> ñu ne afak ah, kay ñu jël alalu réew mi nga xam ne koo dajale pour feebar rek malade yi ñoom ko ñoom war nañ ñoo wax nit ñi dañoo feebar hmm. njagee saa cour des comptes lañ la wax mille milliards yi leen joxoon Mansour Faye ak la sénégalais yi dajale woon gars yi lekk hmm. la waroon a jëm ak ci néew léegi ñooñu ñoo toogaat ci télé naan moo ñu fëggee bool yi baaxul ci wér gi yàlla waaye yaa ngi teel suñu dara nañ ba suñu waxtaan suñu waxtaan wu ne mu ne mën ko waxtaan mais kon suñu suñu papa Xaadim Sall waxam waxam ji mu wax waxam ji mu wax si euh, kanam président Macky Sall ay réew mi duñ ko jox kuy kuy dàmpaloo yooyu mais euh, noo gisee vidéo boobu noonu waaw moom mooy euh, il faut la promotion de la médiocrité Xaadim mhm. Samb rusloo la képp koo xam ne gaaw la ci réew mi ngay géwél ndax tey ma wax la nag euh, Baye Waly sax da koy woy nee na bu xare musaana am géwél yaay jiitu dékku bal yaa géwél da daan fekk lu ñaaw njaga star mu rafetal ko ci dëgg nag bokkuma ak géwél yi nga xam ne nguur dong la ñuy àndal di fen may wax ak yow géwél bu njëkk da daan fekk mbokk gu nar a jaxasoo mu rattaxal ko fekk njaga star ak ak ak ak ak Ouzin maa nga xamanteeg ñoom Ouzin moo tax ma xam njaga njaga ak Ouzin jaxasoo ma dem ne ko man de ba ma ba la mu wax ci yow ci rafet. Mm-hmm. loo ko jàppal di jàppalu la ko. Mm-hmm. demaat ci njaga ne ko ay waaye Ouzin de lu rafet la la waxal xam naa de réeroo moo dugg seen diggante waaye jàppalu la dara. Mm-hmm. nga ne ah mu ne billaay fa mu toogoon lu rafet la fa wax ci yow. ñooñu duñ jubóo. dañuy jubóo Ouzin ñooñu duñ jubóo. dañuy jubóo. sans excès dans le calme. waaye Xaadim Samb mooy kan. ba moom heure bu waxee wax toj toj nga dem ba am 60 ans jëpp 70 ans est ce que amul sa 70 ans. barki démb nga ne président daa war a rey di tëj. génn di jéggalu imaginer nga dund ba am 70 ans war ngaa rus di wax ci penc mi lay jéggaloo. mais nag wax moom Baye Makhtar Seck bu Mboro nee na wax moom képp ku ciy leble baa ngay fay bar doo wax dëgg. te ñoom seen wax dañ ciy leble ñun ñoo daloon Ablaye Wade ba ma gisee mbay peex damaa jooy. Ndiaga Sane ndax dañu def laa gis mu taxaw ci wetu ci wetu Xaadim Samb ñu jàkkaarloo Macky Sall muy dëggal li Xaadim Samb di wax. te Mbaye Péex moo ne woon man may péex ku ma fi bàyyi ànd ak bu ma bàyyee Ablaye Wade ku ma àndal war nga maa daw war nga maa ragal moom Mbaye bàyyiwul Ablaye Wade. mais est-ce que nekk ñu géwalu nguur maanaam ku ñëw rek ñu ànd ak yow. waaw léegi loolu nag mooy li Serigne Touba doon wax. ñooñu ñooy la ñuy teg ci kaw neefee. <laughs> weñ sax xanaa war weñ moo am garaat boobu de réew mii de ku ne xam na ni weñ moo fi am garaatu fu tooy la takk fu mu neex dem léegi nag bu dee ci réew mi nga ne yor ji koy weñ mais ñu la rek daal <laughs> maay wax ak yow loolu voilà liggéey lu <laughs> wala def ni yow di tàpp ah, munoo yoon munoo munoo ni ci réew mi yàlla teral la doomu aadama nga yor ji koy weñ bu waay nga ne fu tooy nga daal nga ne doo contour waaw ñu ne te buur bu ne xam na lu mu nooyee fa daal mu tooy bu waay ñu ne nga tax ba ñu ñu tàpp la rek faatu fa yàlla ci ci ci le portable mais mais bu wala wut bay doo rek wala la kaj ah. kon nag xaarim sàmb ah. gàcce gi sang ñay sëlëmu ko ah. non nañu bàyyi su papa la non maa ngi wax ak yow ban papa sa papa la yow man non du sama papa nañ ko baal la mag buur la waa kaay maa ngi wax ak yow Ousseyn man hypocrisie boobu nekkuma ci. Hmm. na nekk sa papa sa affaire la man du sam papa. je suis pas fier de lui. Hmm. bëgguma am papa bu mel ni moom man su ma yoroon décision réew mi kooku dafay bokk ci jamono yonent bi ñoo xam ne ñu leen daan tëj ci bërëb. ñu hmm. leen fa fekk di leen jox lekk naan ndax ñoom warunoo wax. xanaa xamoo Xaadim Samb li mu wax taal na réew. xam nga loolu ba waxuma sax li mu wax ci ay dàmpalu comme dafa ñàkk fayda. parce que moom du moom dèjà yoon c'est maanaam yoon ci boppam ñu ngi wut ñu takkal mun ñu ko koo takkal ay audio génn yu firndeel ne ndaw si ko waxal boppam ne man Sonko laalu ma laalaanu ma dañ ma cee dugal xam ko a wér ñu wël ñu wëlbati ko ñàkk ko jox koy dàmpalu xaadim mooy joxe réew mi kañ laa yëg ni xaadim ay joxe réew mi bay jox réew mi mooy tànn ku ñu jox réew mi ak te du jox dèjà loolu ñàkk fay la am ñàkk sénégalais yi man li ma ci gën a déranger sax mooy euh, Macky la mi taxaw di ko déglu

loolu image yaa ngi ci si réew mi. ko man bëgg naa papa bu mel noonu. je suis ko ah xaaral nag wàññi loolu moom waxuma ko. Hmm. ñëpp mu ko astafurlaa kon seen président maa ngi jéggalu kon tey boobu la président waroon a am. bu mu yëkkatee kàddu di wax waxu ñàkk teggin yi ma gën a naqari ci wax ji mooy ma nangu ñoom ñu bëgg ñu respecté Macky Sall te ñoom respecté wuñ ko. Hmm. Macky moo taxaw Sénégal gépp di ko dégg mille reprises ne man bii mooy sama dernier mandat. d' accord lii constitution réew mi mooy tere di mën maa ko wax constitution bi mooy tere ku def lu ëpp ñaari mandat yu toftaloo. ko ci àdduna bi yëpp. waa léegi ñoom ñu ne ñun nañ respecté ñoo ne kàddu Macky Sall du dara. parce que ñoom ñoo taxawaat naan ko Macky Sall defal. loolu nan boo xam ne ñoom ci boppam ñu ko daan respecté wuñ ko parce pour man Macky Sall même bu constitution bi waxul sax. ne amul droit def ko. valeur dama la wax léegi ay valeur gis nga Ouzin suñu njiit yi am nañ àq ak ñun parce que dafa am lu ñu xamee woon Sénégal ñoom dañoo doon Sénégal dañoo judd fekk fi Sénégal fekk fi ay valeur fekk fi ngor fekk fi diine mais ay magum jël ñooy taxaw di kàcc di ko assumé ay magum jël ñooy taxaw di jël fen di ko prôné maanaam di def la promotion de la médiocrité maanaam di di dooleel lu dul dëgg parce que Xaadim Samb fi mu toog di wax xam nañ waxul dëgg Mm-hmm. d' accord naan ko li ngay xalaat président bu demee ba yor institution. ba jiite réew li ngay xalaat ñu ne woo ko wax xam nga ni ngay xalaat baaxut. Mm-hmm. xaadim dem na bu di ko may fit maanaam bu kii fi mu mel nii euh, kii. Macky Sall pour mu mbër la boo xam ne koy ñu ni nga nekk sa xel nga wax xaadim Sall nga wax de waxal réew mi ko jox kuy dàppalu waxal mm-hmm. Macky Sall lay may fit quoi ba Macky Sall ñeme wax ni damay def troisième mandat xaadim Sall nag. bu dee mooy dem bay may sit Macky Sall nga xam ne kon nag ñu amatuñ njiitum réew mi tey manifestation tey bi manifestation bu bu yaanamaar bi ak euh, activistes yi bëree bëri ak politiciens yi opposition bi euh, foofu la ñuy daaneele waxtaan bi euh, dañu gis ni Pape Djibril Fall dafa dugg si si biir mbooloo bi gars yi di ko yuuxoo loolu noo ko gisee geste boobu noonu ba sax dafa mujj ñibbi rafetlu ma ko waaye nag ku bindooni tamani tëggee la ñaari boor maanaam rafetlu wu ma ko de bu doon sama sangu kenn du yuuxu kenn waaye ku sa bàyyi yarul sa yaay yarul damay gis euh, euh, xaalis sax wax na ko ci waxam nee na réew mi duñ ko jox ay saagakat des fois nga gis Mollah Morgan mi nekk ci Europe bi di wax lu ko neex ñu koy askane Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa nekk ñaaw yaay rek Ousmane Sonko ku sa ndey yarul sa bàyyi yarul la Ousmane Sonko da laa a yar Pape Djibril Fall. waaw moom laa la wax dama ne ñooñu ñu yuuxoo laa. Ah. ci dellu Ousmane Sonko lañ ko mën a teg. Mm-hmm. loolu rafetlu woo ko daal. rafetlu woo ko waaye ku sa ndey yaru sa baay la kon um, Ousmane Sonko mën na laa yor ndagaay saa mënu ko. sa kër ga nga war a yoroo. mënu ko te moom sax taxaw na. Mm-hmm. ñëpp di ko dégg moom Ousmane mu ne képp kuy wax kilifa du ñaaw ànd ak man xaw ma la bugguma laa xam képp kuy saaga ci pénc mi xaw ma la ànd ak man musuma laa xam kenn musu koo dégg mu saaga. Mm-hmm. kenn musu koo xoolal ñaata ak deux ans presque ñu ngi tuumaal Ousmane Sonko. mos mm. ngeen a dégg kàddu gu ñaaw génn ci Ousmane Sonko. mos mm. ngeen koo dégg amul Bougane Gueye barki démb lañ ko jiiñ. mais a waaw xaaral Bougane Gueye barki démb rek lañ ko jiiñ ne ko ma Sall ngay liggéey mu dagg saaga ndey. Mm-hmm. barki démb kese lañ ko jiiñ ne ko si yaa ngi ci liste bi mu ne dix-septième personne. Mm-hmm. Gaston Mbengue barki démb la ko fi Malick ma Malick Gakou fii la ko Max Koungheul xamal lu mu ko waxal nga dégg leen ñuy coow. Mm. Ousmane Sonko heure bu ñu xëyee di ko saaga. Mm. heure bu ñu xëyee di ko toroxal. di ko wax lu ñaaw di ko wax violeur xoolal tey ñu tudd yaa ngi saa tudd. Mm. ñëpp a ngi waat naan du man. waa léegi nañ toog ci place Sonko bi nga xam ne deux ans xaaral deux ans ñu ngi koy jim ñaaw lii. te mu leer ko en intime conviction que liñ may jiñ amul xoolal kooku. métti gi muy waaye kenn mosu koo dégg mu wax lu ñaaw waaye lépp lu xew ci penc mi lu bon ñu askanale ko ndax Sonko mooy ñaaw yaay waaye Macky Sall ñu ko nii tey bu ko jaay xaw ñu ko dar nii tey bu ko jaay naan ko defal moo def wallaahi bu daanoo suba ñoo ñooy ñëwaat bi bu leen soo ko mayee kanam billaay wallaay la may peex nii lay gis nii ay chargeur universel lañu mm. nguur bu ñëw billaay xanaa nga ñàkk leen may kanam ñoo daloon Ablaye Wade de nan ko fara Wade ndaa daara Wade ndaa yëpp ma ci songu xeej Ablaye Wade yooyu daa woon ci deux jours da ngay sa xaar deux jours ñoo dégg yëpp ma ci songu xeej déggati ko. déedéet déggatu ko de. déggati ko <laughs> te laaj Jibril Fall Jibril Fall nag. waaw dama ciy ñëw. dama doon leeral ñi rek. ndax xam naa ne loolu la ñuy wax nitu Sonko yi ñooy saagawaat. te Macky Sall moo tax pale woo Koura Macky. photo wo ak moom dugal ko ci liste député te ku ne Macky saaga saagawaate lañ ko xamee. Khalifa Sall Macky Sall moo dem ba Paris taawu président ni mu tuutee mu dem photo wo ak moom ànd ak moom. kon te Sonko moom dafa taxaw ne man képp kuy saaga. ànduma ak yow. képp kuy wax lu bon kilifa diine yi ànduma ak yow waaye ba tey loolu ñu ko jàmm. te kii saaga kii ànd ak saagakat yi di leen def député ànd ak saagakat yi di ànd ak ñoom kooku lañ ne moo baax. ndax lan moo tax parce que moo yor politique nguur. d' accord mais mais Pap Djibril Fall ah Pap Djibril Fall man kaawam daf ma xaw a jaaxal ci ci ci man dama jàpp ni ñu bëri dañu naan waa Sonko yi lan moo tax bu nit ñu rangé wu ci Sonko rangé wul ci Macky Sall ngeen jàpp ni warul nekk ci digg bi neutre lan moo tax ngeen woo ndaw Sonko jàpp forcément ni Pape Djibril Fall dafa war a ranger si ñoom wala mu dem si Macky Sall sinon sax ñuy xalaat naan Macky Sall lay lay lan moo tax nit ñi am ba mu ñëw ci manifestation bu toll noonu ak li ñu fa woote pour xeex ko ñu ko fa yuuxoo. waaw c'est pas élégant. xam nga Djibi Fall. waaw. Euh, ci boppam. Mm-hmm. moo war boppam. ci naka moom Djibi li tax ma koy wax mu xoolaat boppam parce que Djibi ñëpp ko bëggoon. Mm-hmm.

yaa ngi ko bi coow li amee assemblée position bi mu ci jëloon. tey les opposants. c' est que dañu jàpp ne nit ñi dañu def xale yi dañu jàpp. mais bu ñu jëlee sax sax xaaral dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne ñun waaw jàpp ne ñun jeunesse bi dañoo def mais defuñu. dañoo yor suñuy bët di xool di xool attitude gars yi. gis nga Abdou Bara Dolly li mu def. ñu ngi gis gis nga kan, Gueye ñu ngi koy wax. chaque jour tu es du pouvoir muy weddi. Mm-hmm. mais fin yi di koy dëggal maanaam responsabilité ak taxawaay bi mu amoon ci bi coow li amee assemblée mais dafa tiré jëmale ci opposition bi naan nii la ñu war a xeexee ñu ne tous les moyens sont bons pour ñu atteindre wala ñu xeex injustice bi nekkee ci réew mi. Mm. assemblée ba attitude ba mu fa amoon xëy na peut-être moom lay ñenn ci nit yi yu digéré gul mooy bi mu ak ni mu tamit amee député yi problème am Aïssata Tall Sall mm-hmm. dafa maanaam nit ñi dafa am luy jur seen suspicion ci yow. Mm-hmm. mooy que problème bi muy ut parrainage dafa wax ay contre-vérité et ça Sall ça nit non euh, je pense ça euh, Sidibé autant pour moi les euh, nit mu seede yu seede yu doy waar ci euh, ci euh, Pape Djibril Pape Djibril ñëw wax ay contre vérité ñu dem ba wër lañ ko xam ne Aïssata euh, Aïssata Sow Sidibé moo am dëgg loolu aussi dafay jur suspicion mais est-ce que mën nga d'accord également ni bëri ay projet de loi yu fi teg ren ki nga xamante ni mooy Ismaïla Madior Fall Pape Djibril Fall dafa jàkkaarloo moom di ko wax ni ko wàllu troisième mandat bi di ko ci maanaam di défendre ni troisième mandat bi am taxawaay boobu taxawaay bu bu bu bu responsable la en quelque sorte mën nañ ko nangu loolu nangu naa mais da nga ma laaj xëy na lan moo tax nit ñi di ko yuuxu ma lay defal rétrospective. Mhm. li tax maanaam point yi nga xam ne xëy na dafa am suspicion ci xelu nit ñi ñenn ñi. dañ ko digéré gul moo tax peut-être ñu gis ko ba tey seen xel dalul ci ñoom te acte yooyu mu posé woon moo ko que dafa am acte yoo xam ne posé woon nañ war a wanee bi jël woon sa sa sa nit ñi mu am suspicion bu def ci ñoom dañ koy gis ñu ko yuuxu man jàpp ma ni mais man jàpp ma ni waaw moom laa man jàpp ma ni man jàpp ma ni képp ku àndul ak passé unique warul am képp ku àndul ak opposition bi dañ la war a yuuxoo man nangu jàpp ma loolu. Mm-hmm. waaye nee naa la xam nga man mënumaa yar bopp yar ñëpp ah. Mm-hmm. xam nga mënuma ko. Mm-hmm. boo nekkee leader aussi mënoo yar sa leader mënoo yar ñi la topp ñëpp kenn ku ci nekk da am sa vie. da nga am looy sentir da am say say say say désir. xëy na ña nekkoon foofu ca mbooloo ba seen bëgg-bëgg ak seen gis-gis. xëy na yënguwuñ ko sax. parce que la foule est folle benn nit sax mën naa yuuxu. da ngay def manifestation la. guy lu nekkul lu espoir xam nga a def bu ñu bisee bu ñubbee këram def autocritique. Hmm. pourquoi tax ñu yuuxoo ma. Hmm. def autocritique parce que yuuxoo boobu programme wuñ ko lu spontané la. Hmm. kenn nit mooy yuuxu ñëpp yuuxoo noonu. léegi lan moo tax ma ñëw ñu yuuxu. je dois revoir ma, position dans l'opposition dans position dans l'opposition parce que dafa avoir une opposition radicale mm-hmm. Mm-hmm. mais tu dois être un opposant radical mais mm-hmm. opposé opposer le président de la république direct face wóor comme Ousmane Sonko def clair donc j'oppose président même bu ko keneen tooñee sax bu ko keneen tooñee sax dem ne c'est le gis ak ak Guy Marius Sagna dend te bi fi nekkee ministre euh, de la gis nga tout le temps jàpp yeeg bàyyi dafa bari woon image boobu noonu photo bi bu ñu ko gisee la la jox euh, lan loo ci sentir comment ah man jàpp naa ni de man ñu ngi li ko opposition bi yàq yëpp. waaw moom tey ñu toog ak ñoom bokkandoo ak ñoom benn saisi. moom laa kaay maay wax ak yow. Hmm. jàpp naa ni de ñu daje ci benn bërëb nga toog nii ma toog nii ñu foto ñu. pour man loolu lu mën a nekk la. photo la daje nga ko jàppee. mais mu Touré elle n'est pas libre opposition bi di woote mu ñëw. mu ñëw rallier si ñoom. mais elle est libre de le faire. parce que actuellement il n'est plus elle n'est plus du pouvoir. am na ay signes yu muy joxe ni dafa bëgg ñëw ci yeewee yooyu boo gisee. waaw loolu si beneen mbir mm-hmm. man moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. man Ousmane Sonko su ànd ak Mimi Touré ma bàyyi ko. encore mm-hmm. loolu c'est mon ultime conviction mm-hmm. Ousmane Sonko heure moo ko gisee mu ànd ak Mimi Touré mm-hmm. ci politique mm-hmm. man ma xam ne day naxaate waaw ndax ba ñu démb suñu nangoo tey seen i pexe jubul Ndiaga Sarr Mimi Touré ko neex heure bii Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi su amoon lu ko neex heure bii bii du jóge ci wetu Macky Sall elle est une frustrée Mimi Touré su amoon lu ko neex heure bi du jóge du nekk opposant bokkuloon sax ci ay programme man je man kuma jox sama sama kaanu ma dóor Mimi Touré nekk opposant bokkul won sax ci programme mais minuteur Touré man dama japp ni man. elle n'est pas une référence. ah bon waaw minuteur Touré du référence. mais nak de fait que gis nañ ko mu tok gii mari tok ñu ñëw ci benn manifestation daja fa ça ne veut pas dire que dafa and ak ñom d'accord mom day opposer di defar image politique gis na ni opposant la il faut mu def opposant mm-hmm. opposant yi bu ñu day dem. d' accord toolam nga. ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ak Yewwi Askan Wi. parce que Y'en a moo woote. Euh, ñuy xeex mu tudd jàpp na ni fi mu toll nii jàpp na ni. <laughs> ce qui est ce mais amul de lu fi xew nii lu xew loolu mu ñu turee di ànd ak Macky Sall mais ñu ëpp <laughs> lii injustice la ci ci mi ni moo tax mu ànd ak ñoom mais ba mu nekkee ci Macky Sall li nekkul woon injustice. Eh, force reste à la loi la daan mu ne force reste à fii réew mi kenn du fi nekk yow yaa demal sa bopp suite beauté ñun Macky Sall demal suite beauté yaa fa demal sa bopp force reste à dañoo war a respecter institution barki dem yàggul de mais yàggul même pas six mois. Mm. ñu ngi tuddee léegi fi mu toll nii lii nii. injustice la c'est ça qui est déplorable moo tax ma la dañu war a xoolaat valeurs yi. Mm. ñu jiite réew mi dañu inculquer ay valeurs. Mm-hmm. man mënu soo nekkee ci benn mbir lu mu yées yées nga koy défendre soo ci génnee nga di ko xarab ba pare bëgg jàpp sénégalais yi ay dof fii ku fi bindoo ni tam ñu tëggee la ñaari boor. d' accord kontaan naa kontaan naa si waxtaan bi loolu tey ñu joxe rendez tey tey nañu lu xaw a yàgg nag quand même. mais ah, kontaan nañ quand même vraiment trop. non ñun nag li ñuy def nii Ousseyn jaamu yàlla lañ ci jublu. waaw mm. ah, jaamu yàlla lañ ci jublu mm. parce que kenn ku ne. dafa am génération booy tombeel mm-hmm. am nga ci mission soo ko yëgee ak boo ko yëgul mm-hmm. soit que da ngay écrire sa da bind ton propre histoire mm-hmm. ou bien rek bu ñuy bind histoire bi kenn du la ci boole te man bëgg naa bu ñuy bind histoire Sénégal ma am benn chapitre même bu dee benn phrase la man ma participer ko ci loolu la ci diine jéeg valeur yi waaw loolu kontaan trop alors ça a été un plaisir de vous servir